Euh, ñëw bi ngeen ñëw pour ñu def complément waxtaan xam naa ne moom weer bi moom sama weer la am Thione Seck fii indil Thione Seck fii mais na comme y a des mois des jours wala des semaines comme ça et eh, va bene ñu jàppee ko noonu je parlerai juste du penc mi ma indi ci ay précisions parce que tam. Euh, dama bëgg ñi nga xam ne ñoo sopp Thione Seck sopp doomu Thione Seck euh, mu jaral leen ñuy crise cardiaque wala mu ñu jaral leen ñuy xuloo lay rassurer ne leen samedi bii di ñëw dinañu jouer penc mi ak Ramdan maanaam su waale jógee Grand Théâtre dina ñëw jouer ci penc mi le temps que man may assurer la première partie maanaam perte ñu benn partie yëf yi affaire de nappaate la alors moom mi nga xam ne mooy ki ma siñeenteel la bàyyi indéterminé du penc mi xam na ne li muy def ay nappaate la parce que teguwul fen fenn je m'explique l'affaire date de 2014 j'étais en tournée européenne de trois mois normalement sax tournée bi du woon trois mois un mois et quelques jours la woon bi ñu demee y uy eu d'autres yu ñu fekk en France def seeni engagement il fallait que ñu may leen le temps ñoom tam ñu def une grande promo pour ñaari date en Italie benn en Suède et cetera et cetera donc euh, dafa yokk ci tour bi mu obligé nekk deux mois et quelques donc trois mois yu manqué à ma grande surprise bi ñu ñibbisee dañu fekk fi benn ordonnance d'expulsion je n'avais rien compris pourquoi parce que euh, amul woon benn péril vu que ne man la ma fa def moo ëpp trois mois yi yi muy wax j'avais j'avais investi cinq cent douze millions à l'époque je dis bien cinq cent douze millions de francs fa le penc mi ab salle la woon tout court salle boo fu duggee léegi ba nit ku yiw ku ne koo manti nekk ak rang boo mën a doon nga war faa mën a ñëw toog déglu musique walla nga seetaan parce que investissement ba moo tax alors bi ñu ñibbisee bon comme fekk nañ fi loolu ñëwoo ko mu toog accompagné de son frère ak de mon avocat maître Ousmane Seye pourquoi nga def lii mu ne bon il sentait qu'il qu'il devait le faire moom loolu la tontu Ousmane Seye wokk ma na ma bàyyi noonu ñu compter trois mois yi nga ko ameel jox ko ko ba mu ne boy on est reparti waaw koo ameel deux mois e quelques mu yóbbu le tribunal di nga ko ameel quatre ans xanaa kon ba dalee génne Sénégal waxuma la génne boit de nuit bi mais Sénégal ci boppam ba dalee génne te booba ak léegi 2004 ba de 2014 ba léegi même ça fait 4 ans donc ça veut dire que moom depuis 4 ans mu ngi encaissé loyer entre temps on a signé un protocole de reconduction de contrat bi yoon sous seing privé kenn mettre ko sax sous frappe on l'a on, on l'avait signé sous seing privé devant le manager du penc mi Jim Momar Khoule ak man ak moom fii ci kër gi loolu moo indi la reconduction du contrat dañu ko sax abrégé en disant que ñu ngi def biir reconduction dans les mêmes conditions antérieures où donc rien n'a changé et cetera et cetera et on l'a signé sous seing privé loolu mu ngi ci document yi alors moom nag moom ordonnance boobu mu yor boobu mu yor saa bu ko neexee comme ñun on n'a pas eu la présence d'esprit pour faire casser l'ordonnance là moo ko mën a permettre muy def lii quand il veut moo ko mën a permettre muy def yii muy def nii quand il le veut bi ko defee une fois laa ne maître Ousmane Seye kii il joue avec mon nom il joue avec mon honneur dama bëgg ñu def benn procédure pour ñu casser euh, ordonnance bi bi mu yor parce que man à vrai dire je pensais que soo yóbboo nit ba tribunal pour trois mois d'impayé mu jóge tournée mu ñëw fay la tout d'un seul coup affaire ba jeex na ordonnance boobu da nga koy garder en souvenir wala nga denc ko dans les tiroirs mais doo ko brandir rek quand tu veux et puisque ça n'a pas été cassé huissier bu mu dem jox ko ko dañuy demander ay policiers yu yu leen accompagner rek ñu ñëw les policiers n'ont ah des euh, des ordres à exécuter bu fekkee ne dafa am kayit boo xam ne tribunal moo ko ordonné il y mais amaluñu ko un centime alors man je ne comprends plus xanaa boog yëf yi nekkatul location su nga fay dafa mel ni y a chose autre chose boobu nag dégg naa ko dégg naa ñu ne moom waa Auchan la ko bëgg jox Auchan la négocier ñu pare ko jox xaalis bu bari moo tax il fait tout ce qu'il veut il fait tout ce qu'il peut pour que ñun ñu génn au pénc mi donc kii moom dëgg-dëgg bu ñuy waxante dëgg rek yàpp na ma lool lool lool parce que yabaate weesuwul lii yabaate weesuwul lii parce que koo xam ne ameelu la un centime te moom day am na yoo xam ne su ko ngor mayewul sax diine mayewu ko su ko diine mayee sax ngor mayewu ko parce que maa moom am na fu ñu jaar oto bi muy dawal maa ko ko lebal mu di ko fay ndànk-ndànk ñu koy génn ci location bi bi mu soxlaa sono pour ubbi genre gës fayu à Pikine amul lu mu jënde matériel maa ko ko maa ko lebal matériel douze millions mu dem ubbi loolu ñu koy génne ndànk-ndànk ci location bi ak yeneen ak yeneen ak ay bon yoo xam ne su ma ko génn woon tey gi di nga xam ne kii coon sekk yàgg na ko lebal xaalis lebal naa ko fi ñaari yoon deux millions pour mu jënd ay moteur et cetera et cetera donc maa ngi moom am na fu ñu jaar et puis l'affaire là ça date de deux 2008 2009 donc am na ay at yoo xam ne nekk nañ ko ensemble alors man dama gisul euh, lan moo jar lii te fàtte ne am na na këyit bu ñu def maa moom même si j'avais envie de louer le penc mi ñoom si ngeen nañ ma autorisation boobu ma am ci droit seule condition rek lañ ki teg chaque fois bu ñuy fay location bi kama ko loué du ko fay si man maa koy fay si waaw mais boo jaaree nit foofu ngeen signé tous ces papiers la parce que yow euh, bëgg nga jox Auchan euh, affaire bi yow euh, lu saa la neexee rek nga dem ba jëli huissier man je pense que xëy na dafay won waa Auchan su fekkee ne loolu dëgg la naka nañ ko may mu ngi def tout ce qu'il fallait peut-être wala mu jot avance su xaar euh, avance su Auchan il est obligé de faire du bruit pour que waa Auchan xam ne ni euh, mu mu ngi ci man loolu dong laa ko jàppee parce que affaire bi amul sens mais xanaa nit boo demee naan da koy génne di nga ne sax ba daf ma amee sax genn wàllu weer wala boog xanaa di nga ne. kii kat dama koy génne parce que daf daf ma amel sax genn wàllu weer mais koo xam ne yoreelu la dara pour man la pour euh, euh, euh, ordonnance bi bi mu yor nii c'est erroné mais comme que il faut que ñu casser ko tout le travail maintenant va se trouver à ce niveau te moom na xam ne que man fii laa dëkk et je me battrai je me xaw ma nag daf may génne. xaw ma du ma génnee mais moom waaye léegi moom su ma génnee kan moo ma jox sama investissement kan moo may remboursé sama investissement alors ko ñoom il m'avait signé un papier qui disait que ñoom ñoo ko garantir donc y un problème y a un problème koo yorelul cent francs mu ñëw ne da lay génn ci ban base li da lay génn ak ban argument lay joxe je redis ordonnance bi mu yor ça date de 2014 j'étais en tournée européenne dem na sos ay sosom yu ko neex sensibiliser ay juge xaw ma naka naka naka man ba je ne pas juge mais xam naa ne il a réussi à les sensibiliser ba ñu daa koy signal ordonnance d'expulsion d'accord mais loolu passé na parce que on avait tout soldé 2014 ak léegi ça fait 4 ans bu ñu ko doonul fay kon du ñu nekk foofu ba léegi donc où est le problème xanaa léegi affaire bi nekkatul rek affaire location su weer dee nga fay donc moom li am fuite ne Auchan la ko bëgg jox man dama koy dëggal parce que man yoreel ma ko 100 francs démb le manager du penc mi wan na leen reçu bi nga xam ne mooy reçu mois bii. mais amaluñ ko dara mais kii moom qu'est-ce qu'il veut comme nag moom il joue avec ma notoriété il s'amuse avec mon nom mais je vais demander à mes avocats en dehors de la procédure bi ñuy demander ñu kase ko mais je vais porter plainte contre lui parce que kii daf ma yàpp parce que soo mënee indi caaru police ñu bloqué koñ bi bloqué koñ bi ñëpp fàq naaw lu xew lu xew lu xew lu xew ñu naan Thione ba la ñuy génnee penc mi non kii yëpp na ma lool yëpp na ma lool wala bokk ñan ñoo koy jàppale parce que nit ki tam euh, euh, dama dem ba je ne comprends plus wala bokk xanaa bokk c'est pas moi ba dafa des hommes politiques yu nekk derrière ba yoo xam ne ñoo ko naan vas-y chauve la amee nañ ko cent Ousmane sey actuellement mu ngi au Canada wax nañu démb ci guddi ak tey maître Dialy aussi mu ngi ciy def liggéey bu xarañ dinaa ki sax impliqué sax yeneen i avocat parce que man dama bëgg xam euh, lan moo nekk ci ginnaaw su ma fayul woon d' accord su ma fayul woon ah l'affaire de 2004 d' accord su ma amee woon nii sax genn wàll location mensuelle d'accord mais man Thione Seck vraiment je ne comprends pas wala boog les juges boog xanaa amuñu ay bët di xool parce que quand tu signes un contrat de reconduction sou seing privé loxo lañ ko bindee nga signé ma signé le manager du peintre mi signé même bu fekkee ne pa papier boobu même su fekkee ne amul valeur mais fan la moral bi nekk fan la moral bi nekk fan la morale ji yi nekk fan la moral parce que même bu dul dara sax mais euh, war naa benn contrat moral boo xam ne sax am na yoo xam ne warul mën a nekk je di bien bi ma ñëw di investir penc mi ñoom ils étaient très fatigués moom il était très fatigué bi may ñëw di investir noo xoolal door na pooj bu baax parce que man je fais pas les choses euh, euh, euh, nii nii molo molo man quand je viens je viens avec tout ce qu'il faut je te redis j'ai mis cinq cent douze millions et quelques au penc mi parce que dama buggoon bëggoon comme li ma waxoon sànq rek defar boo xam ne koo mënti doon mën nga fa toog personnalité boo mënti doon mën nga faa toog bëgguma ñu koy méngaleeg yeneen euh, bërëb yi moo tax man def ci loolu et par rapport am am à mon image et boo ñëwee penc bi ay nit yu yiw nga fay gis boo ñëwee ci VIP bi ay kilifa dëggantaan nga fay gis loo xam ne ça date de 2008 2000 euh, ba léegi donc ñun moom ñun ñun ñoo koy apporter parce que ñu ngi koy fay sa location mensuelle su fekkee ne nag dafa yaatu biir xam nga comme il paraît que bu xaalis bu weex tàll la ñuy yor te bu buñ la ko dóoree nga nga mel ni kuñ dóor yàpp bu fekkee ne moom loolu moo ko tiital d'après les dires mais je je suis désolé désolé mais je me battrai jusqu'au bout parce que parce que amul benn raison pour di ma génnee nii parce que yore